maa ngi tudd Gaye Diouf maa ngi dëkk Ibo Town euh, maa ngi leen di nuyu Gambia yëpp Gambian player uh, footballer playing in Israel now at the moment in Gambia um, I can say loolu laa mën a wax daal Uh, maa ngi demoon Israel um, that was in 2000 and, um, 2016 in December si la génn Gambia dem Israel I was playing Fortune um, before Fortune Unicorns la woon nawetaan then from there ma dem Fortune Fortune nekk naa foofu noonu for one year ñoo égal Fortune from third division to second division then ma amoon transfer saga pour dem Hawks and from there noonu laa demee Israel noonu December before election bi yeah. Uh, season bi it was okay it was good it was a successful one because dama demoon on a trial si trial bi foofu laa then. Um, ma am contract yi five months gars yi check suma possibility ndax still now mun naa deliver and yàlla def ma deliver after the five months then si ma gars hand over a three years contract. waaw because am uh, team ma sign three years they still then feel on ne am uh, still a young player still a kid young player anga mentality bi dafa different so uh, dama bëgg a yóbbu loon second division team Israel pour ma am experience to gain more experience. so time boobu laa demoon loan nag um, from that loan si la uh, pare loan bi ma ñëwaat back but still they feel like dama war a demaat beneen loon um, si laa demaat loon boobu laa demee woon loan Georgia from Georgia ma ñëwaat Israel from Israel nag um, ma ñëw am a very good season half season daanaka five months bo no four months uh, because Georgia ñoom January leen dee door ba December So my am on good season for four months. Score for now eight to nine goals in 14 games. So ma ñëpp si waat Gambia for holiday so si holiday boobu laa amoon transfer saga bi te Belgium um, Belgium bi moom there was a lot of things uh, maybe uh, it will come later naa explain everything moom moom moom moom daf ma invite uh, daanaka daf ma ne ma testing anyway ma ne ko no problème après ma continuer su boobaa ma ñëw trial sax naa ñëw trial ma ñëw trial si fight fight ak gars yi ba yàlla def ne first game bi I was not even in the 18 against Morocco ñu draw 1-1 the second game mu jox chance jox start si starting eleven bi. then I know that I have to prove myself yàlla def ma prove myself that game ma ñëw nekk di match winner ma score the only goal from that game. that's right. Um, after that year, after last year, time boobu noonu la problème mi Belgium bi door and stuff like this so ñu doon try pour negotiate everything yàlla foofu noonu la defee ma am injury so si injury boobu noonu nag um, toog naa full year playuma uh, full year playuma football then ma ñëwaat back to football for na from June la am July la am injury seven maa ngi ñëwaat back to football to play football in August that was a whole year because coronavirus bi tam daf ma delay a lot. ah superstar amutoon. superstar amutoon sa available toon so tey boobu nu Alex Kala si boppam muy Ismaila Diagne moo daan kii nii place yi man daf ma daan man daf ma doon scout fanaa through the zonals through benn koto ngida foofu ni la scout wax ko suma benn koto ni ngi so noonu la ma gisee so mu ma doon follow Hawks man I don't know man I was just training Hawks so mu impress so mu ne xam ah, ma bëgg a yóbbu by then Drogba la bëggoon a yóbbu Drogba nekkoon Real de Banjul so after si nu mu daa ñëwee trader ba gis ko xam nga benn di maa ngi toog mu advice ma ne nii ngay play nii ngay play xam nga waaye I don't ko sax so from there noonu la lifine eh. then after mu ñëw approach ma waxtaan man waxtaan suma papa ma ne ko ne man du ma leen def dara without suma papa si life musuma koo def du ma ko leen try sax so even su nekkee man suma papa is not gonna involve man du ma move so man si laa waxtaana suma papa suma papa mi ne ok ñu toog ñu ñëpp ñu condom maa suma papa ak moom ak lifin ak Rahman ma vice president ama stuff like this ñu toog ñu waxtaan ñu waxtaan ko so noonu la noonu la noonu laa demee ah life bi in Israel is very mun naa la wax ne it's fifty fifty but for superstar anyway story bi ma ko maa ko relate maa ko génne there is no false allegation about that amul dara loo xam ne comme ma ngi ko wax loo xam ne fen la about dem lu ma wari ni yëpp la um, first of all ñu ne ñoom ñoo ma jëlee nawetaan fii génnee ma fii aw ma dara def ma dara first of all man I was bu ma doon dem condition la ma gaay tegalal because time ba ñu bëgg a yóbbu Drogba so first of all gars yi dañ ñoom dañu um, fayte ñoom ñooy fay ticket bi ak everything pour ma ma dem yaa ngi understand ñu waxtaan everything agreement and last point of eh, pour ma dem si la gars yi ci ñaat ñu ne non man maay fay ticket because team bi ñu ne comme xamul ma and everything so maa nga dem trials so man maa war a fay ticket bi and everything ma ne la ah, ñu ne ma waaw then ma waxtaan ak sama papa sama si la génnee xaalis I think it was almost to one thousand dollar um, uh, fifty thousand ma dem Sénégal si la fay ticket bi so ñu ne su ma fay ticket bi su ma méegee trials yi they gonna refund back the ticket to me comme uh, ticket moo ne bi dañ ko gën a refund sama papa because maa ngi dem amul vidéo amul dara so ma ne ok at ñeme naa jël risque bi ñu ne ma trials bi three days four days la three days ah, four days trials la da ngaa àgga mu desee la three days to impress or you have to come back and it's your loses when you lose but if you make it they have to return back the ticket money so ma ne no problem I'm ready to take the risk no problem si laa dem xam nga ma dem yàlla def ma make trials ma sign contract since maa ngi capoo seen respond um, you know, well, okay, but still now ticket bill no no sasi alate refund ko and that ticket is costing um like what thousand euro and I have nothing musuma ko complain musuma um anything So I just keep quiet dal set and then no. No no never never. The only thing mooy team bi superstar defun dara. team bi ñoom ñoo fay ñoom ñoo defal eh, ñoom lu gaa ñoo uti team bi ñu ne am nañ player bi ñoo def visa process bi man maa fay ticket bi and ñoom seen agreement dañ wax su ma méegee trials yi the will be refund back that's the meeting bu am man Alex Kala Rahman later ma communicate ak Rahul moo nekk uh, Rahul ku fa uh, nekk fële maa moom ñoom mujjee communicate ah, ok dama amoon injury um, after ma ñëwee back from my last injury uh, ligament after that maa ngi amoon a rough rough year 2019 was as yàlla te I won't say lie it is one of the worst moments come to life lu ma dund si loolu mosuma koo dund si my life so because even before that ah, nga waxoon naa fi story I was there time team bi ñu ngi bëggoon ma génn si team bi ñu ngi bëggoon and everything they were pushing then even they stopped me from going so my arm injury that was in January that was in February Haifa after Maccabi Haifa game bi So I got this injury. So it was, I think, decent meniscus, but I don't know. So from there, man, man, mangam, it was in training. After the game, uh, lose up the don't kick, my injury. So my complain and they don't uh, team attend me, can hold me. So I have to keep quiet. Ma noppi. And the following day, munu ma dem train. The following day, ma muna don sila dem si training ground. Guy like Lutan Euro train. Man, I told you people that dama ganyo and everything. Why yen? kenn parewut ko concentré kenn parewut a déglu lu ma ko wax so ma noppi ma concentré may dem si training gars yi bëgg ma force ma play ma ne leen am not okay to play because mënu maa daw suma tànkaay mënut a move gars yi ne non man mun naa play dama bëggut a play gaañu ma dara jotuma ma ne leen déedéet man dama gaañu te mënu maa play because suma nii mi ngi néewi te nii bu néewi mënuloo ko play because I have to see a doctor wala ma defa MRI scan check lan moo jot suma nii bi so you ignore me so danaka ignore me for one week or two weeks communicate to and everything so benn day ah, ma text Alex Kala si boppam Ismaila ma ne ko explain ko situation ma ne ko right now situation bi nii la mel en January fayen ma suma full salary February fayangun ma suma salary bon ñu fay ma suma salary because also man suma salary laa need and because moo nekk suma moom laa nekk di liggéey fii so that's my money and ko need so ñu ne waaw ma baax na dina waa offer and everything so mu fa nekk dina ma dara dégguma ma communiquer offer text ne ko fay ma play ma force sama bu boppam play if non mi ne ma waaye ma ne ko léegi yow la nga woon mi ne moom moom xamul dara xamul lan ma ne ko really mi ma waaw ma na ma communiquer sama papa maa ngi jaxal ma communiquer sama papa so ma ko ma sama papa mi ne ma ok bul worry yow noppi rek bu du waaye keep on demal tirin ma ne ko but xam nga right now su ma waree dem tirin dama su ma tànka ba ma sonal ma dem tirin with that nii nii maa ngi swelling mu maa maa ngay dem di try di force ma boppa pour please sax boobu bu jëwutoon a dem because nii ba nga doon gën a swelling after si dax ma toog loo for one five seven eight days doxuma maa ngi tëra si kaw lal man kenn aw ma garab aw ma dara so at the end at the latter part team bi ñëw yónni benn seen benn manager mu ñëw mu yóbbu ma si benn docteur docteur boobu mu gaa def MRI so xam nga ñoom arab arab nii rek xam naa dañ ko wane doo ko ne amul dara just pain la nii rek so kooku noonu mi ne man amu ma ligament amu ma dara so noonu la ma gaa yi péngoo ne ma péngu kon su ma péngu loolu dina wàcca gaa yi ma and everything so péngu boobu noonu nag affect ma comme wàññi suma pain bi and everything waaye but xaw ma woon ne loolu daf ma affect later so xam nga noonu laa toogee

xam naa ne yow nekkuloo façon nit boobu noonu and waaye dinaa waa offert mais ma tuuti tuuti de naa la koolaat koolaatuma fa ales koolaatuma for one month mënuma kooluma liggéeyantuma maa ngi toogoon kër man keena aw ma lekka aw ma dara at the end because salary ma téye woon since December yónnee naa family and everything maa ngi denc suma xaalis bi Gambia nekkut with me so lu ma dese woon jeexoon na ma ngi doon expect na salary gars yi nangul maa fay géegaay force ma team bi koolaa ma ñëw train ma ne ne mënumaa train su ma nii bi nu mu nekkee nii dinaa ñëw participer ma ñëw si participer si dat di ma delluwaat kër ma delloo kër si guddi team arab la they have dañ am ay mafia nonsense yi nii la mafia yi ma jékki-jékki gars yi seen pétard si kër bi waaw ah, ma pétard I don't know maa ngi nelaw fekk man am rek ibbi sama parentière bi pour ngelaw dugal and everything lu ma dee bëgg a taal yàqoo bi wala divin because of li seera trop parentière bi laa la ibbi pour am fresh So with those things pétard yi ma tiit ay actually xam nga yow maa ngi ragal ma ewu suma suma moto bi fu ma ko paakoon ma jege-jege moto bi disappear and maa ngi amee caabi ci moto bi I don't know xam nga naka la moto bi demee ñu nangu ko suma la gars yi block ma for mobility block ma from everything man kenn ma fa nekkoon maa ngi ubboon a things yaa ngi ubboon a meet man ma jaale xaw ma la laay def toog naa for one two three weeks xaw ma lekka ang after season mga bena teammate la won ko ma mu jëm mu ma mayon bena I think 40 dollar ma dem jëna saako ma no la doon toogee sombi di ko nekkat di ko nekkat di ko lekkat for am nga mosta so léegi I have pour muy xaalis Gambia suma account mu ma ko send abroad yaa ngi understand because if not du ma mën a survive si la get things yi foofu la demee to the standard boo xam ne after si dama war actually xaw ma laa doon def agency bi every step bu ma def every step bu ma def lam leen dee let noo so moo tax gars yi seen wax yu gars di wax nii yëpp maa ngi am evidence suma fuul and I never lie man du ma fen du ma jugee ñëw dara rek ñëw fen because things daf ma naxari because daf ma naxari because sama papa daf leen dem call maa ngi ñëp si Gambia sama papa daf leen call seen leen voice ñoom ñëpp ñu ignore ko no one in want to uh, respond to it te wóor leen dara we don't ask them for money li ñu doon moo all we were asking mooy at least you show care because I was the same player la and academy boobu noonu su taxawee tey man ak Pa Omar Baba ñoo tax ñu taxaw su demoon ñu fiil ma fiil Pa Omar Baba fiil du doon am lu mu doon liggéey ak academy because man ak Pa Omar ñoo nekkoon testing pour ñu make sure that dina am trust pour Alex euh, pour build academy fii si Alex si Alex Kala because many players man bu ma signé contract three years ñu ne ñoo amul dara ne vitin that's a lie mosutoo gis footballer fu mu signé lii amul signé fii wala agent bi amul commission that's a lie loolu mënut a am. yaa ngi understand man I have no because after bu ma signé den pompe xaalis si académie bi that's the time xaalis boobu noonu si la bokk si leen génnee ñoon Bill ñoom Bambalaay ñoon Oko time euh, bu gaa yi at bu gaa yi doon dem Israël xaalis boobu lañ leen jëlee fayale ticket that that very year lañ leen ticket Bill la Bambalaay fon naa xam kan ak kan so moo tax suñu waxee ne comme dañoo génn dañu an ak agency bi musuma toog laaj leen xaalis comme lifin no mata what the situation is du ma leen di laaj xaalis even ñoom seen boppa benn time rek laa leen Musa aba and that wasn't new that time da moo kooku noonu ma ne ko ne ok abal ma and that's uh, five hundred dollars la and ma refund ko xaalis ma ku imagine ma ne ko ok amee ma pocket money abal ma benn one hundred and su ma agsee Gambie dinaa wut pays ba mu accès Gambia ah, dafa yónni Aleskala pour Aleskala call ma lifin te man fu accès Aleskala ma kon Aleskala maa te yow wax nga na dinaa dinaa ñëw sa kër I will come and help you and nii ko ma ñëw daje moom si stadium bi mu gamaa jaay gaaw ay wanaa la nga call ma ma ñëw eh, nga ñëw suma side nii ma invite la nii ma ne ko déedéet waxuloo ma loolu da ne da ngaa ñëw suma kër ñaa ñëw ñu waxtaan how possible la def pour ñu faj yaa ngi understand bu adi laata part team bi moom dama dem ak adi en Ibrahima Soxna laa mujjee woon a contact because dama ne offer ci boppam lawyer la sport lawyer la moo nekk suñ sport lawyer ba eh, solution now pour ñu def nga help ma mu ne ma maa ngi négocier team bi offer defu dara ma call Ibrahima Soxna Ibrahima Soxna si la ma boolee eh, ngi tunda Jonas Vanilla Jonas Vanilla boobu noonu moom ma jàppale push things yóbbu ko eh, seen team bi notice for after 15 days team bi respond mu yóbbu leen FIFA ñu leen terminate suma contract ma fay suma ticket ma ne gars yi ne léegi ticket nag da ngeen maa help pour ma fay ticket none of them defuñ dara yaa ngi understand from that ticket money nag man suma wax suma papa ma bëggaat suma flight ticket ma ñibb si waat si laa ñib si Gambia and ma ñib si Gambia kooloon texoon kenn liggéeyantiwu ma man maa leen kool liggéeyanti leen only time bu ma gaa liggéeyanti offer moo teg mu ne waa bu ma abaloon pour ma refund ko and loolu maa ngi amee ni fi si laa wax suma benn xarit fi ne nga transal ma ma offer si la ma waa ok xaalis boobu refund bi ba tey moom refund naa ko xaalisam bi and so su waxee ne ay hundred thousand yow ma thousand dara loolu yëpp fen la das comme lu mu wàll dafa nekka di sos rek they don't know what to say but loolu yëpp amul mi ngi am um, mi ngi am and comme man soo gisee ma wax ne ko damaa wax sax because man am naa lu ma naari but pour fii ñuy ñëw ñu nekk si académie ñuy ñëw ñu xam because du man keena man stand naa for a lot of players bi Israel though du ma mention names but there are lot of players yoo xam ne comme they were intact and yaa ngi understand and they were doing wonders but mënuma leen di ay am nga am na players yoo xam ne right now they are excel they are all under me I understand den daan jaale agency bi den daan jaale amul player fu nga koy yóbbu bi kay boo ko yóbbu kay ne ko bëgg a utal ti amul ma ma ma ñëw accommoder player bi suma kër ma ma loj ko suma kër bu ngay ko club mu dem am na yenn player dañ leen dee yóbbu for one complete year duñ dee am salary dañoo leen dee play noonu soo suñ ñibbi ñu kuppal leen loolu leen dee def am na yenn player turu corona bi ñun five six ñoo nekkoon benn néeg turu corona bi yeneen players yi seen tiim bi dañ leen release andi gars mun dañu bi agency bi dañ leen mus ekkati wuñ xaalis pour jox players yooyu noonu ñu nekk foofu noonu players yooyu ñun dañ sofa so ñun ñu fa nekk ñoo xam ne comme ñun doon téye salari ñoo doon bokk suñu salari ak gars yi ñuy tooga ñu together ñuy lekka so it is a very sad story daal pour Israel moom pour players yi fa dee na everything okay adumalawa is a professional life it's your life whatever you want to do you can do it but if you are not strong mentally mun loo faa i have no grudges against anyone muy Ismaila Jah muy Ofer mu kenn i have no grudges but what they are doing is completely bad comme nu ma def sax especially dafa over worse suma ñoo blog suma ñi ngi wane blogun suma dem Belgium bi and mafia play leen di def daanaka i can say ñoom dañu ñëw jël sa hundred percent right club su ñëwee parce ñoom dañ jaay sama fifty percent right suma former club bi bi néew na ñu amee fifty percent right fifty boobu noonu nag su nekkee dama jaay hundred million su one million so beneen team ñëw offer ma one million so léegi percent boobu su ñu ko jaayee one million dafa mel comme team boobu loses la team bi du mën a koo bàyyi ma dem so business boobu leen dee dem moo tax doo gis benn player si gars yi mu sign contract ak club comme permanent contract comme jaay nañ ko player si yëpp. lu gars yi di nekkee dañ leen day jël di leen loon di leen loon noo leen laa loonee di la loon di la loon si yàgg si nekkee yàlla dafa def nag comme man injury right now lu ma dalee nii kon sa carrière soo nekkul ko strong da ngaa dem down waaye agency bi daal dañ laa nekk di loon di loon doo sign contract ay one year loan one year loan one year loan players yu bëri loolu la nekk di face ah yenn players sax amuñ seen seen salary I understand man moom am totally it's very sad daal it's very sad su ma buggee narit lu bari duñ duñ duñ pare <laughs> anyway gars xaalis bu gars di dugal tamit rek player yu ñu dem la suñ signé seen commission and everything foofu foofu la ko gars yi di dugal te gars xam na ne they are having a lot nit su gisut fii ne dara ko fa duñ dugal seen xaalis tubaab du dof ñun ñëpp duñ dof soo doon dugal tey sa xaalis si dara ah te amuloo fa benn bénéfice xam nga ne du dem it won't go du ko def So guys gis nañ ne the more players they are taking the more money they are having agent bu la wane ngay yóbbu player amul agent commission wala amul lifin loolu amul ci àdduna bi ñu ngi ko gis fii ñoom mineraw la lu tax sometimes deal day collapse because agent fii wala signing fii wala stuff like this moo lay so amoon des pommes here ñoo xam ne ne they are taking talent for free they are not spending a butut for free te player bu dem team mooy fay ticketam bi su boppam am na a lot of actually players mo kono na so mo mo mun lo ma wane comme because eh, gars yi di wane waaw ñu ngi pom xaalis fii fii fii xaalis bu ko ne players yi ñoo ko amee players yi si boppam ñoo ko amee so xaalis bu xaalis si players yi la lu gars yi sampa kiti yëpp xaalis si players yi la am players yoo xam ne da nga war at least suñu signing signing fii su dekkee benn ok benn ten thousand dollar bu ko yëpp is a money money la xaalis si Gambia la xaalis la Yeah, you understand? Ten thousand dollars is approximately to three hundred thousand wala four hundred thousand ten thousand dollars boobu soo si jëlee five thousand jox la mun na ko si mun na koo help life am but no they they are greedy they prefer to hold that money by themselves yaa ngi understand ok so dañu ma jox la exemple dañu po Alex Kala moto bi mooy jënd and everything fu ko jëlee jënd koo jox for free it doesn't make sense nekkul reason We are working for him. He is eating the money. We are, like a slave to him. So there's a lot of things in the academy. Come, buguma reveal, buguma wa. But sumaware um come it will. So I just want to make it clear that come send response with them. Everything was a lie. There is nothing long the truth la. Because after mo poste lo, then take sila soga guys, sila guys soga text mapua. Since mapua, buwan buwan text sila ko guys soga text. Feka magi tis magi tawo mas gis ko. I just instant block and delete and everything because buguma guy amat uh, and affair man I'm done with them. But I have to tell my people, especially the young players that come in, because I'm not in a situation so to go off. Man, I know what I'm going through for the past one or two years. I understand, and this is the reason why I'm fighting. I'm also going out bravely to talk to people or to young Gambians to understand the situation going. Anybody yow yaa fa nekka but apart from loolu noonu du kenn there is even the rumor that even ñu liggéey si academy they don't get nothing from it yaa ngi understand that guy is only for his interest am na ñu nekk di liggéey for the academy dara butut amuñ ko si so ñoom seen affaire if they don't want to talk let them continue working like that but man I'm done with them and this is the quite truth and they have no evidence against me mënut a wax dara man I know everything and lu ma leen lu may wax fii nii everything maa ngi ko amee suma phone so ma have man nekkuma illiterate man graduate la so I know what I'm saying so ay facility yu gaay build ni rek dañ nekk di fake nit yi players money la soo seetee ñaata player la gaay export fu mu nekk from Gambia yaa ngi understand it's too much it's almost maybe to 30 players so 30 players yi su nekkee ñu ñëpp si waat 5 players la ñu sign a the end after ñu ñëpp si waat maybe ay 15 20 players lañ so player bu sign ñu jëla 10 thousand dollars player bu sign ñu 10 thousand dollars 20 players ñaata is too much. agency bi ñoo leen nangu ñu terminé contract player su signé contract bi ba pare so dundee bëgg am ak problème ak team bi so day take the team above comme dañ day jël team bi teg ko si kaw player bi so dañ day xam ne player bi ah, amul benn su ngoyee ñibi ñibi ñibi rek la muy def yaa ma jox la exemple Omar mu ngi woon ak man foofu noonu team ma nekkoon moom di dixième ba la gaa wax ne ok ñoom soxluñ ko ñu terminé contrat am ñu ne dañ koo fay lu ko gaa amel and lu ko gaa amel it was approximately to six thousand dollars ama euro but di xam nga ñu ne day all five hundred dollars la ko gaa jox bu mu ñu see ba Gambie around May la ko gaa yónnee waat beneen fifteen thousand ñu ne ko pour gift loolu is wrong loolu rudeness la. ne la war fay one year if not da nga war a because dafa war a nekk mutual consent yéen ñaar yëpp a war a toog ngeen waxtaan ngeen agree yaa ngi understand so boo ñu Omar most of the Gambian players they are taking out mun naa laa wax du ma su ma waxee use word illiterate maybe is an insult but comme seen jànga soriwul so mostly duñ dee laaj dañ dee boot seen bopp dañ dee sign loo xam ne xamuñ ko yaa understand. man last year rek usine la ma fi balaa ma léegi usine la ma fi contract yi five years superstar aywa eh, dem ma fay one thousand two hundred dollars and that loolu yëpp fake la yaa ngi understand contract yi superstar fake la dañ la ko te one thousand soo ñëwee toog Gambia ko fay duñ la ko mus a fay but dañ day la lay sign pour beneen team from outside bu mu la mun a jël so ñoom dañ laa képp ñu amee la sa rights yi ñoom ñoo ko amee so man usine la ma contract three years plus two years boo xam ne. nekkul mutual consent ñoom ñoo neex rek ñu yokk ko so dafa nekk approximately five years players yu bëri loolu lañ sign muy bambalaay bo si kaw bambalaay parce que ak keneen ak keneen player du wax ne sign du loolu but dañ dee sign du dee am no option dañ leen dee force pour ñu def ko du ma leen blame dañ seen push lañ leen def pour ñu am na player yoo xam ne ñu ngi Gambie ñu leen koñe right now demun demun fenn anyway man I'm gonna close my topic today comme duma si waxaat and everything I just wanted soo gisee ma go deep to everything today kon naa bëgg nit yi xam ne giddi man gis naa seen response pare wu ma si woon wax right now lu ma am pour def mooy concentrate on my recovery and off from the media and everything lu ma bëggoon moo xam so to educate the young ones ñu xam the reason ak lu mu war a def be careful and ñu uti guardian football guardian ñoo xam ne xam nañu football ñu ngi leen di a lot maa ngi kirim sama papa bu baax si taxaw lu ma taxawal Ibrahima Soxna from there xam nga ñun Tijaan ñoon Hamza they really do good to me help na ma top Japanatam players yi everyone fans yi seen messages and everything um, gonna say thank you all I will keep fighting and inshallah I will come back stronger di leen ñaanal yéen tamit and everyone ku am injury yàlla na ko yàlla may mu wér mu delluwaat back to football and to know that I'm not afraid for anything. I'm just lumawa fenomasi and they have no evidence to go any eh, living. And anything lu gaay wax loo xam ne living am here duma leen respond naat dafa depend si gaay lu gaay wax baax na but ku si góom ku si góom tamit is okay ku ma si góomu tamit is okay but xam naa soo ma góomu tam nga go into it nga laaj players yi yu jaar superstar comme what they go through su la ko waxee you will know that what I'm saying is di la yow di la ñaan di la gërëm si everything xam nga Star TV di ñaanal suma yaay ak suma papa tamit yàlla may nañ gudd fan and di congrate Fortune seen trophy bu gaay win suma suma former club leen and di wish everyone all the best and I will keep fighting comme seen message lu ko gaay wax